d'accord ba tey rek ak nu mu ak xam nga yéen <laughs> euh, da ngeen def intercoalition ngeen ñëw à l'Assemblée nationale. waaw ñuy xaar ngeen nekk le bloc ngeen ngeen ngeen ngeen ber seen langue bopp. yéen waa groupe Liberté. Euh, waaw waaw waaw lu tax mu am ñaari groupe parlementaire ngeen ngeen ber seen langue bopp mu am ay mbir yu ay ay Euh, yu xew yu bari yoo xam ne euh, vous vous n'avez pas respecté le modor d'ordre bi bi Yewwi défendre ban ban ban mot d'ordre ab xam nga attention d'abord il faut nga xam il faut que tu saches et puis waa Yewwi sax dem nañ ba ne yéen vous collaborez avec le pouvoir à l'Assemblée nationale waaw xam nga euh, yéen yéen daxaar la wala yéen guy ah yéen guy yéen guy ak yéen daxaar <laughs> <laughs> yéen yéen xam nga man <laughs> man su ma waroon ak Macky Sall du ma tàggu kenn. nee naa kenn tënku ma kenn tënku ma c'est clair hein du ma tàggu kenn je n'ai rien à prouver wax naa la ko donc seen wax yooyu amul sens. Macky Sall man je n'ai rien personnellement contre lui ni contre Khalifa. mais vous êtes vice-président. Euh, grâce à un groupe parlementaire. voilà et ce groupe parlementaire bari na euh, parfois à l'Assemblée euh, lu muy am convergence de vue avec la la le groupe de la majorité présidentielle. mais euh, ça, ça c'est un fait y a y a à mon à mon sens si tu veux être précis si on veut être précis yéen loolu lañ di wax mooy affaire u Mimi moom la ñu jël ko en épingle. du loolu kese. déglu ma. affaire Mimi Touré bi bu mu doon ñëw au niveau du bureau de l'Assemblée nationale Lamine Thiam xamu ko man xaw ma ko man sax def naa ci benn tweet ne yaakaar naa ne lii la war a doon mais wóoru moon parce que je me suis dit c'est quand même gros mais on va y bu ñëwee toog loolu lañu wax ñu ne waaw euh, Benno Bokk Yaakaar moo bind ne ma euh, Mimi Touré du fait de ses déclarations bon allez bokk tuuti et cetera encore j'ai je leur ai mais Benno on ne connaît pas Benno ici donc euh, non astafurlah nee APR moo bind wax loolu ma ne on connaît pas l'APR loolu laa wax président assemblée nationale ak Dioum ma ne leen ici on connaît Benno Bokk Yaakaar. vous avez voté contre. mais ce contre. groupe dañoo. voté pas le groupe. xam il faut être rigoureux. ah, ah. déglu ma au bureau j'ai voté contre les mes autres mes autres collègues qui sont du bureau et du groupe parlementaire Liberté Démocratie et Changement. on voté pour. Ah. il y en a un autre qui s'est abstenu ou quelque chose comme ça. waaye nee ne sax du voté parce que bés boobu nañu décidé ne les présidents de groupe du ñu voté. mais ça veut pas dire que le groupe a pris une position. mais mais xam nga le groupe parlementaire ne s'est pas réuni si le groupe parlementaire s'était réuni. mais mais da ngeen justifié xam nga li ñuy justifié. du justifié le vote contre Aminata Touré. politiquement ça peut se comprendre. du du du la ñuy wax parce que Aminata Touré. moom moo nekkoon la tête de file de l'attaque des biens mal acquis souffrance politique judiciaire bu ñu teg waa PDS c'était sous sous le magistère de Aminata Touré en tant que ministre de la justice moo ñoom da daanaka loolu sax moo tax euh, PDS bokkul. Euh, waaw mais xam nga loolu. loo loolu loolu. loolu sax ba l'emporter ñu teg noonu si loolu ñu teg noonu sax politiquement et légitimement ça peut se comprendre. mais da dul loolu rek. noo déglu ma ci boobu. loolu ça ne peut pas au niveau de Mamadou Lamine Diallo et de Tekki sur le principe qu'on ne doit pas s'amuser avec les de la République pour régler des comptes politiques du ma ko kenn xanaa dégg lu la wax quand il s'agit de chasser Macky Sall ou je ne sais pas pas Macky Sall Mbaye Ndiaye ak euh, Moustapha Cissé Lo à l'époque Ndeye Fatou Touré s'est opposé à au nom de ce principe-là ce principe est supérieur à ce que tu viens de me dire. mais du loolu kese. loolu laa gëm. mais du loolu kese beneen affaire mooy l' affaire de la motion de censure. du loolu kese. kese ñaar yooyu laa fa gis. la le vote du budget. Euh, y a les votes du budget il la motion de censure y a la nu la modification. de la loi euh, électorale euh, de la loi de la de la loi électorale. dinañ ci dellu si léegi si tu veux on parle de la motion de censure on a moitié ça en épingle bon l'idée de la motion de censure a circulé. Et effectivement, bon, euh, Yehui avait porté ça, etc. Et euh, les échanges que Wallou voulait avoir avec Nyom, ou Liberté Démocratie, on a, ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils étaient pressés. On a analysé la situation froidement. Moi, j'ai dit effectivement, on aurait pu mieux faire. J'ai même dit après à Biram, pourquoi tu engages tes 50 députés alors que tu as besoin que de 17 Mais vous n'avez suivi. non on a xam nga c'est bon les échanges ont été c'est xam nga des fois c'est pas facile de parler et la il y a il y a eu euh, à mon avis et c'était une période un peu avec la loi des finances donc les échanges n'ont pas pu être vraiment bien structurés parce que malheureusement peut-être qu'on euh, n'a pas fait ça mais il aurait pu y avoir une instance au moins entre les groupes, deux groupes qui se réunissent régulièrement pour échanger et cetera bon. et sur la loi électorale. la loi Parce que je crois qu'elle est très mal écrite, la loi électorale. Souvent, ça a même des problèmes avec les gens du PDS, les ah militants. ah waaw am na am na problème ak les gens du PDS ci mbirum loi électorale boobu ñu yaakaar ne man dama contre Karim Wade dugg na fi génn fi la am nga réglé bon alors que je dis mais moi depuis 2016 je me bats pour ça parce que au nom du principe au nom de la République loolu la gëm moom la jiital ubul wataan minal iman je préfère le aux individus X, Y, Z, lambda, là. C'est comme ça. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit Donc, clair. bien qu'appartenant à un groupe, doo topp aveuglément toutes les directives du du du. du mais kenn dafa am loolu fii ci ci man Sénégal aveuglément du may damay gum ku gumba fii gumba gumba gumba àlaxe yàlla lakk la c'est impossible ah non avec tout ce que je représente c'est pas possible c'est la catastrophe may gumb xanaa ah, Afrique ay gumba kon mais nous nous avons la responsabilité loolu laa lay wax j'ai écrit le responsabilité c'est pas de la rigolade je suis pas là pour du tapale il faut que ça soit clair néewuma fi dans les jeux politiciens ak yu ñuy wax yooyu néewuma ci ce qui m'intéresse c'est de mettre le Sénégal sur les rails ah. pour que demain le Sénégal à la tête de l'Afrique de l'Ouest fasse partie des dix plus grandes économies du monde et c'est possible euh, loolu loolu loolu